يلا مملا جوخين سبحانه وتعالى منه وإن تطيعوه تهتدوا سولن كتوب دينجن جب صلى الله عليه وسلم يعني يلا واتش قول سيكوام واتش كو سي جبوتام واتش كو سي أي أندن دورام واتش كو سي كيب كو خمنا توب نيونام بيالا سبحانه وتعالى دي في جلي سوفسي بل فاتح كلي بوج مجدف waxon len la ñaan bo xamne mom ngay ñaanal nit ki so demee ba nga xam gis nga ne mu ngi sollu lu mu ngi sol lu ees la bis bu rafet mu ko sol xaftan bu rafet dawma bu rafet bu ko ko eñaanee bokku na si lo koy ñaanal moy ñaan bu ñu bi alayhi salatu wassalam jox nga ne ko tobli wa yuxlifu llah taala mooy ràpp ak jàmm tuubale wa yuxlifu llah yàlla joxat la beneen mooy yàlla na ràpp ak jàmm dañ ko daan dégg si mag ñi ba léegi am na koy def ba léegi am na koy wax suñ gisee nga sol rafet ñu ne la ràpp ak jàmm wa yuxlifu llah ngeen teg si lool yàlla utalal la joxaat la beneen bon jullit du iñaan jullit dafa war a nekk koo xam ne kolam dafa set dafa set lii la ñu sang bi alayhi salaatu wasalaam jox nañ fexe turi yàlla subhanahu wa taala sax suñ làmmeñ bi waaye wallahi ñaan yi bëri na ñoo xam ne jàng nañ ba yey kayit munuñ si ñaan yi dara mokkaluñ si dara benn waay mos na may wax mu ne boo doon déglu benn docteur si tele bi ñu laaj ko ñaan ba nga xam ne sooy dugg wanag moom ngay wax docteur mu ne daf ko fàtte waaye dina ko muraajaa seetal ñaan bi bés bu nekk yaa ngi dugg wanag bés bu nekk yaa ngi ko soxla ñaata yoon naka na nit mun a fàtte ñaan bi ñaan bi dañ ko war a mokkal comme nañ mokkalee suratu fatiha ngir lan suratu fatiha ñu ngi koy baamtu waxtu wu nekk bon nañ fexe ñu dellu si ñaan yi yonent bi alayhi salaatu salaam moo ñu ko jox wallahi nañ fexe ñu gëm ko lam ñu jox mooy suñ jàmm lam ñu tere mooy suñ musiba bon ñu tuxu si beneen ñaan soo demee ba nga xam ne yaa ngay ñëw sol sa mbubu nga teg sa mbubu sa yaram looy wax bismillah bismillah bismillah wax naa baat bi ñu nekk julli sax mën nañ ko nañ fexe mu nekk loo xam ne dafay sax suñ làmmeñ sooy toog nga ne bismillah sooy wax nga ne bismillah sooy lekk nga ne bismillah soo demee ba jël mbubu mi teg si sa yara nga ne bismillah li yonent bi alayhi salaat wasalaam digal ma teg si beneen ñaan mooy lan soo demee ba dugg wanag nga jubali wanag bi nga ne bismillah allahumma inni audu bika من الخبث والخبائث ما بام تواتك بسم الله سودا مي بجبني ونك بي بلا لا تدغو نانا بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بسم الله مولان مانجي كما سي ستوري برمبي سبحانه اللهم ايو يا الله إني من دي أعوذ بك من مسلو من الخبث خبث مي ذكور الشياطين شيطاني غوري ولا غوري شيطاني شيطاني سين غوري مانجي مسلو يو يالنغا مسلم سينيوم والخبائث أك شيطاني سين جيجيني مسلو نغا غوري شيطاني أك جيجيني شيطاني يعني يالا مسلسي شيطاني غوري جيجين مكاك داو lii la yonent bi alayhi salaatu salaam digal soo ko defee nga jiital sa tànki càmmooy nga dugg fekk tudd nga borom bi subhanahu wa taala gis nga lii soo ko defee mooy riido ba nga xam ne dox na sa digganteeg seytaane ban riido moo dox ñu ni neen doomi aadama suñu diggante mooy su ma jëlee bunt bi tëj riido dox na suñu diggante ñu ni neen su ma duggee si wanag bi tëj ma toog maa ngi am kóolute ne amut benn doomi aadama bu may gis walillahi alhamd waaye ana riido ba nga xam ne moo dox suñ digganteeg seytaane yi mooy tuddi borom bi subhanahu wa taala ngir seytaane mën na ma soppale ngelaw dugg fekk la si wanag bi seytaane mën na laa jiitu balaa yow ngaa dugg si wanag bi waaye ñaan bi mooy tax yàlla subhanahu wa taala du ko may yoon mi mën a dugg fekk fa wala di la gis waxal bismillah allahumma inni audu bika min alxubuthi walxabaith am na jigéen ñu bari seytaane laal leen fam leen fekk mooy sa wanag ba ba mee dugg tuddut borom wa taala bi fàtte yàlla seytaane am si moom yoon yaa nañ yàlla sàmm defal ñu jaami aduna defal ñu jaami alaxira soo jénn looy wax jiitalal sa tànka ndey joor dugalal sooy dugg nga jiital tànki càmmoñ sooy génn nga jiital tànki ndeyjoor nga ne lan gufraanak borom bi sa njéggal lay sàkkoo seetal doomi aadama ba mu jógee ba léegi soxla wanag soxla mbubu mu sol turi yàlla mu ngi sax si làmmeñ bi kii mooy jullit lii la yàlla namu si ñun yaa yàlla defal jaami aduna defal ñu jaami alaxira ba beneen liqa insha allah tabaraka wa taala